asalaamaaleykum mbokki sénégalais yi nekk Argentine communiqué bi mi ngi jóge ci ambassade bu Brésil madame Soxna Fati bint Correa mu wax ni ci élection présidentielle février 2019 ambassade bu Brésil jot na ab loo ci carte d'identité yi ak carte électeur yi commencé nañu nag séddale bi ñi nga xam ni dañu fare ci réew bu Argentine première consul bi dina ñëw ci cent vingt bi dana door séddale bi dimaas la 2 ba àllarba la cinq decembre mu ngi nag woo képp koo xam ne bind woon nga nga dem nga jëli sa di d'identité mi ngi leen di fàttali nag article L55 bu code électoral bi dafa wax ni kenn mënul jël jëlal kenn bosam kenn ku nekk yaay demal sa bopp boo demee nga présenter récépissé bi ñu la joxoon bi ngay bindu barab bi ñu koy defee nag bala ñu cee yegg association sénégalais bi nekk Argentine dina ko fésal ñu fàttali ko ñi nekk Argentine première consul bi dina ñëw ci saint bi dana commencé séddale bi le 2 bala 5 décembre kenn mënul jëlaale kenn nag bosam loolu la code bi wax kenn ku nekk yaay demal sa bopp nga yóbbaale récépissé bi ñu la joxoon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di rafetlu seen ànd ak ñun